rek ci waa kër maam borom Touba soxna ma rek Bousso lépp luy xéewal aussi ci suuf mu ëpp na ko yal na yàlla fay ko seen taxawaay daal rafet na ci gàmm jërë ngeen jëf wala ñoo ko moom euh, imam Moutara bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على إمام المرسلين رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله sallallahu tabaraka wa taala alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala ñu ngi leen di nuyu di leen baalu xaq di leen ziyaara xam naa ñi fi teew yëpp nuyu woon leen nuyu nañ leen nuyuwaat leen waaye nag ñu mu ma bañ a nuyu Chérif Mouhamadou Lamine Haydara ak eh, fadilatul imam Seydi Abdoulaye Diop ak uh, imam Ndongo ak uh, alxaaji Fall Fali président ku uh, zawiya bi ak sama sama coworker alaaji Daawda tabarakallah di leen di nuyu di leen ziar di nuyu jàngal jàngkat yi nee na sànq Fali nee na buy wéy bu ngeen wéy du neex di naa ne dafay léeg-léeg leen dikki rek tabaarkalla waaye woy mënuñoo ñàkk ñuy nuyu tamit eh, imaam eh, Moustapha Diop moom tonton imaam la léegi ndax xam nga bu fekkee ni nit dafay denc sa way jur tabaarkalla sama ilimaan la ba pare may ko sama way jur woo tabaarkalla jaa nen ne wallaay ndeysaan ñu ngi lay nuyu di la ziar nee naa ne c'est le c'est le c'est le plus beau couple de New York bu la imaam Moustapha ak Adja Ndeye ndax mm. ah, ñoom ñëpp a taxit rawatina sama yaay waaye mosuma gis bu baax comme ñoom nag dëgg yàlla ñu leen di nuyu di nuyu waa kër maam borom Touba yi fi teew yëpp ni ko Baye Fall yi eh, waxee léegi délégation bi ñoo xool rek ñoom lañ te seen njiit yi Pape Seye Dramé bi eh, ah, ma ko miinagul dama foogoon ne papa la ci man waaye en réalité man maay bàyyi maamam bu jigéen moo sama bàyyi bokk bàyyi am maay bàyyi ngi koy nuyu moom ak ñu mu àndal yépp wax dëgg yàlla di nuyu imaam Mouhamed Cissé moom nag dafa bëgg Cheikh Tidiane nga xam nga Cheikh Tidiane li yàlla bind maa ko ci gën bëgg te su ma gisee ko bëgg dafay xam ne daf may dimbale tubaarkalla tubaarkalla maam Cissé nuyu président Cheikh Tidiane Thiam di ko jaalee suñu xalif bi ñu bokk di Cheikh Ibrahim xalifa Mohamed Niass ñaan suñu borom may ko yërmandeem te yégal ko ci eh, indiyinu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di jaale yi tamit Adja Ami Lemu ci boobu jóge fi di ñaan suñu boroom ñi fi jógee ñëpp mu yëgal leen ci barsaxu yonantu sallallahu alayhi wa sallam waaye xam naa ne fan yi nga xam ne euh, foo xool rek leeru yonantu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jayir ci almahaaj Malik di xam ne law lam yalux fi fadail kawni talaatuhu qalbariyatu fi dolmaahi yallaahu nee na budul woon ne yàlla <clears throat> ba mu namee amal dafa bind leeru yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu jaillir ci ñàkk gi nga xam ne moom la moo mooy suñ cosaan mu ne ko noonu ci lënd mu ñàkk googu la ñuy sax waaw moo tax ku dul yonent bi rek yonentoo tax yàlla bind la sallallahu alayhi wa sallam moo tax eh, yi ñu koy limal bi ñu commencé gàmm ba léegi joxaguñ ko xàqam moo xam lu ku ne mën a wax ci moom benn nit yàlla bu mag Umar ibnul Farid moom dafa moom la ñuy tuddee imaamul aashiqiin foo ko fekk rek xadara yàlla bi lay wéy yàlla àtti bés nag muy nelaw ñu euh, wax ko ci biir nelawam wala mu am machad ñu ne ko lu tax doo wéy yonent bi yow sa wéy yëpp gisuñu nga wéy yonent mu ne dama xamul lu ma koy wax ku yàlla de ku yàlla tim nekk sa géwél hmm. xaw ma lan laa koy wax waaw yàlla moom mu màgg mi rek moo xam lu màgg te moo màggal màggaayu jikko yonentu yàlla muhammad mu màgg sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuluqin azimin moo tax tagg boo mënta tagg yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ngeen ko ci burda bi ngeen jàng ak euh, fan yi yëpp fama tatawulu ama lil madixi ila ma fihi min këramil axlaaqi wa chiyami wallahi mu ne dafay laaj boppam tatawul mooy yuqoolu Euh, dox bu yu di jéem a joti dara mu ne man euh, li ci sama biir ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa bari na de waaye nag ana nan laa mën a amee njoolaayu mën a yukkoolu ba jot maqaamay ki may tagg ba jox ko xaqam yonent bi li nekk ci jikkoom li nekk ci tedd ci jikkoom ci moom li nekk ci tedd nga ci mbaax ci moom li nekk li nekk li nekk benn waay dafa ñëw ci Seydina Ali ne dama bëggoon nga wax ma eh, yonent bi moom mooy kan jikko yonent bi boo ma ko doon jàngal lan nga may wax Ali ibn Abi Talib ne ko xam nga bi àdduna tàmbalee ba mu ne ko déedéet mu ne ko xam nga kañ lay jeex mu ne ko déedéet mu ne ko àdduna bam tàmbalee ba ba muy jeex yàlla wax na ne lu tuuti la moom àdduna te yow xamuloo ko mënoo ma koo wax nga bëgg nag ki yàlla wax ne moom jikkoom lu màgg la ma wax la jikkoom nan laa koy nan laa koy defee dégg nga àdduna mu tuuti mi lañ mënta waxtaanee yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu màgg mi ni koy waxtaanee bon yonentu sallallahu alayhi wa sallam li imam Buusi di wax rek moom daal da xool ba mu rek nga ne moom daal xam naa ne mbindeefum yàlla la rek ñu ne waaye yonentu cojjal ko ne ko bu dee bindeef bi moo gën ci li yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam wa annahu xayru xalqillaahi kullihim moo tax ñi koy melal yépp te ñu tuuti lañ waaw saxaaba yi li ñuy bari bari ñi ko mënoon a xool te duñ sëgg wala ñi ko mënoon a xool seetlu ko ñu tuuti lañ booy xool ñi doon ndaw ci ñoom te mu miina leen boppam lool sax ñoo ko mën a melal ñu mel ni Seydina Ali ak Hind bi nga xam ne doomi Xadijatu la yonentu sallallahu alayhi wa sallam yar ko te ku koy melal it doo ko melal mukk ba wax ni mel da ngay niroo rek ka annama shamsu tajli fawqa rawnaqi fawqa jabhatihi wa fi ashiati booy booy booy booy booy booy mel da nga naan daanaka mel na ni daanaka mel na ni mënoo wax rek nan la mel waaw lu tax mooy eh, li li imam Busiri rahmatullahi alayhi wax ne ka shamsi tadharu lil aynayni min bu'din saghiratan wa tukillu tarfa min amami wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu qawmun niyamun tasallaw anhu bil hulumi fa mablaghu l ilmi fihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi mu waxaat ca gannaaw tamit ayal wara fahu maanaahu fa laysa yuraani lqurbi wal bu'di bihi xayru munfaximi waaw ñun ñu ko sori luñ mellal mellal mu des ñu neewoon ak moom it luñ mellal mellal mu des sidna ali ibn abi taalib mu ne daal li ma ci xam mooy ku ko mellal boo demee bay pare rek da nga naan way njëkk ak way mujj mosuma cee gis ku mel ni moom te du mujj mosa gis ku mel ni moom <laughs> sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama géwëlam ba xasaan Euh, daf koy wëy di di wane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu re ni mu leeree woon ak ni mu rafetee woon ak ni mu baaxee woon ak ni mu mu ne mata yabdu fi daajil bahimi jabinuhu yalux mithla misbaaxi dujal mutawaqidi faman daa man daa yaku faman kaana aw man daa yakunu ka ahmadi nidaman li xaqi aw nakaanan li mulxidi agarru alayhi binnubuwati xaatamun min allahi burhanun yaluuhu wa yashhadu wa yashhadu wa damma al ilaa wasfa nabi ila ismihi ida qaala fi lxamsi almuadinu ashhadu wa shaqa lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hada muhammadu sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam yonentu sallallahu alayhi wa sallam xasaan mi ngi ñuy wax ni ni ni ni meloon mu ne balaa ngaa xam moom mooy kan doo ko fekk ci bëccëg parce que leeru jant bi moo lay nax te leeru jant bi it bu la naxee dafa fekk mënoo seetlu rek ndax li tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam amul tikk takk ndeer takk ndeer jant bi moo lay leeralal bañ gis ne yaa ngi nii mu wane sa ker waaye ki nga xam ne nag moo gën a leer jant bi ana jant bi wane keram moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa amuloon ker mu ne waaye da ngay toog diggu guddi mu lëndëm nga toog rek gis lu mel ni tempête mu jaillir ñépp di gis euh, ñi dend ak ñoom mu ne fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy soog a agsi sayyidatuna Aïcha bés dafa toog pusaam réer ko muy xool timisa ngi jot nii yonentu sallallahu alayhi wa sallam jógee jàkk ji di dugg si te amul sondeel bu mu taal amul dara lu mu taal naka la yonent bi dugg si rek néeg bi leer naññ mu xool jëwu yonent bi nekk moom mooy leeral néeg bi mu gis pusam bi mu daal di jël baytu xasaan ibnu haabit bi ne ko ajmalu minka lam tara qattu ayni wa akmalu minka lam talidhu nisaau xuliqta mubarraan min kulli aybin fa kaannaka qad xuliqta kama tashaau mu ne ko wa ajmalu minka ku la gën a rafet lam tara qattu ayni sama bët mosu koo gis wa akmalu minka ku la gën a mat lam talit bu nisaaw jigéen mosu koo jur xuliqta dafa dañ laa bind mubarraan ngay ku ñu setal min kulli aybin ci bépp defo fa kaannaka qad xuliqta kama tashaau dafa mel ni bi la yàlla di bind fa la invité rek ne la Mouhamad wax ma noo bëggee ma bindee la soo koy wax mu lay bindee noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama moom ku mel ni moom yàlla mosu koo bind ku mel ni moom yàlla du ko mos a bind sallallahu alayhi wa sallam waxuma la loolu waaye lu yàlla bindit ak ku yàlla bindit bu dul woon ak moom du la bind ndax nee na aadama lawlaa muhammadun maa xalaqtuka bu dul woon ak muhammad du ma la bind moo tax boo koy tagg wala buñ koy waxtaanee wala buñ koy nangam defaluñ ko faveur Euh, tagg gi ñu koy tagg mi ngi rafetee ci tagg gi muy tagg yonent bi <laughs> sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ñu ni tamit suñu tagg mi ngi baaxee ci tagg gi ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loo ko tagg ak loo ko mën a wax rek mbindeef la te moom moo gën a tedd ci li yàlla bind kon nag lenn rek ko mën a tagg mooy li imam Busiri rahmatullahi alayhi wax ne daaw di wa wasfiya ayatin lahu zaharat zuhura naari qiran leylan ala alami bàyyi ma ma melal ayaat yi nga xam ne feeñ nañ comme feeñu safaraay berde ca kaw montagne arab dañ daan def bu fekkee ne guddi jot na ñi mën seen bopp ci ñoom yàlla bindee leen ñu tabe ba dañuy dem ci digg àll ba taal fa eh, mat ci kaw jànj ya dégg nga di di di di xaar koo xam ne dafa xiif pour ñu bernde ko wala di xaar koo xam ne dafa réer pour ñu wan ko yoon dañ ci daan dem bay wax seen jaami naa leen alli yi naaraka man yamurru in jalabta dayfan fa anta xurru taalal safara wi ku gis ku romb rek dana gis a safara wi soo ma indilee gan gu ma teral mbaa ma wan ko yoon rek xamal ne gor nga arab seen tabe tollu woon na ci loolu mu ne yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam nan nga koy wanee su fekkee ne moom mooy mandarga mi nga xam ne ci la ñi di xamee yoon moom mooy mandarga mi nga xam ne mooy safaraay bernde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan nga koy taggee ba feeñal moom mooy kan mu ne tagg wi su rafetee de nga boole ko dana feeñal taar bi de waaye ko soo ko tagguloo nit mu mel na mu mel fa durru yasdaadu xusnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran gayra muntazimi mu ne wala aayaati alquran yii mu bëgg a tagg aaya bu ci nekk suñ ko booleeg morom ka ba mu nekk saar ñu boole leen ak morom ya ba ñu nekk ay xisb wala ba ñu nekk ay eh, ba ñu nekk kaamil mu ne taar ba dana génn de mu ne waaye laaye bu nekk boo ko tegoon ci wetam mu ne laaya ja rafet moo tax mu ne fa durru wurus durru yes daadu dana dollee ko xusnan cig taar waxoo moom muntasimun aju nooseew la cib caq waaye walay sa yan xusu du wàññeeku na xadran ci dayoo waxoo ta moom xayru muntasimi du luñ noosee alquran laaye boo ci tegoon wetam rek mu rafet saar woo ci tegoon wetam mu rafet waaye boo ci boolee it mu gën a rafetati naka noonu mujizaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam boo jëlee leer ga feeñ fekk ma ngay soog a juddu wala keral gi Cheikh Hadji Malick wax ci nuuniye bi ngeen wax nii ne irhaas la woon ci moom wa idlalun bi aynin fiha jiirin fa irxaasun lahu kullal uyuni sallallahu alayhi wa sallam yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak way juram abu taalib fekk fukki at ak ñaar rek la am yéen a ma ko gën a xam Seydi Hajj Malik wax na leen ko ci wala wax nañu ko boog ñun ñëpp ci xilaadu zahab bi fii sirati xayril arabi bi mu tàmbalee ci yaa raisal bahri lil asfaafi indi asfaafun biha durratun ala min aljalami muhammadun nuuru abdillahi shaybata haashimi wa abdi manaafin maa qusayihimi kilaaba murrata kaabi wa luwayin wa gaalibin wa fihrin wa malik nadrin ilkarami kinaanati wa xuzaymatin wa mudrikatin ilyaasa ma mudari alxamraai siirihimi nizaara addi ma addan man yujaawisu adnaanan fa takdibuhu qad jaa min alalami حمل معد للشام الأنبياء ذكر إن اختصر في تدمير عربهم إذا أنهم أنبياء الله قد قتلوا إذ قتلوا لأنهم حرمات الله قد هتكوا إذ قتلوا أنبياء الله من جرم mu wax ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoom te ci lañ toll nag kon jar na ñu waxtaanee ko yonent sallallahu alayhi wa sallam jamono yii ñu toll ci la juddu woon fukki fan ak ñaar ci rabiul awwal bu dee wax yu bëri wax nañ ko ci waaye bii ci gën a siiw boobu Seydi Hadji Malick nee na booba Anou na mi ngi ci yëlëbun ci nguuram maanaam am na 42 ans ci nguuram xam nga Anou Sharwan bi tolloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy judd bi mu amee 24 ans ci nguuram ci la Seydi Abdoulaye bàyyi yonent bi judd mu am 42 ans ci nguuram ci la Seydina Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam judd yonent bi dund ba am juróom-ñetti at moomu faatu ci même at mi yonantu maami bi faatu ci même at mi xaatim faatu aama zamani wa faatul jëddi zahana min wa xaatimin wa anu sharwala lil karami mu ne abdoulaye moo moo ko jur abdoulaye cheybato moo ko jur moom la ñëw abdul mutalib tuddul abdul mutalib cheybatu la tudd baayam dafa takkoon jabar ca yasriba mooy madina tay sallallahu alayhi wa sallam bi mu fa takkee nag ne bu demee bu tolloo diggante dinaa ko indi ba mu tolloo diggante mu indil leen ko moom mu jàll dem Cham euh, euh, di def commerce ki ñuy wax Gaza tey Gazatu Sham eh, wala Gazatu Hashim Hashim moom moo ko eh, Hashim moo ko moo moo ko moo ko sanc mu gaañu fa Shaybatu juddu ñu ne ba mu juddoo dafa indiwaale benn béjjaaw bu rafet ñu naan ko borom be béjjaaw bu rafet bu sant bi Shaybatul Hamdi bi mu màggee nag bàyyi tëxam jël si ko Abdul Muttalib boo gisee ñu naan imam Shafi Muttalibi la ndax mu Muttalib bi mooy maamam jël si ko bi muy ñibbi nag nit ñi jis ko mu ko porté mu rafet loolu ñu ne waaye boo demee jaamu Abdul Muttalib la rek ñu bàyyi ca tur ngir nëbbu ko ba màgg waaye mu mel ni sax tur yi daf ko neex ñu bàyyi ca tur wa Abdul Muttalib moom nag Hachim moo ko jur Hachim tudd Hachim Amr la tudd lu tax ñu koy tuddee Hachim daf daan defar lekk ñu ko jox ñi ñàkk màkk moo tax yàlla déjiyee ko ba mu xelalee waa màkk ne leen bekkoor bi bari na nañ ànd ñun ñëpp di dem Cham ñi amul di dimbale ñu am bu ñëwee bokk yàlla indi saaroo di ilaa bi Quraysh إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدعمهم من جوع وآمنهم من خوف عمروا العلا هشم الثريد لقومه وأهل مكة مسنتون عجاف هاشم moomu nag Abdou Manaaf ko jur Abdou Manaaf mu réer la tudd Cheikh Hadji Malick bi muy wax saxaaba yi waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niñ bokk ak yonent bi mu ne laa qab na afaana fi mughiratin mooy abdu manaaf wa atiqan inda murrata faaruqan bi kaabihimi amma aliyun bila shakkin qad iltaqaya bi shaybati alhamdi alayhi salatu wasalaam sayduna Ousmane mu ne mi ngi taseeg yonentu sallallahu alayhi wasallam ci mughira mooy abdu manaaf benn waay daf ne ma dafa am ku ne ko alquran dafa dafa du waxi yàlla bu doon waxi yàlla du ne mariama doomi imran la moussa doomi imran la te moussa ak mariama seen diggante ëpp na junne at ma ne ko abdu manaaf mooy nijaay yonent bi Abdou Manaaf mooy ñeenteelu maami yonent bi kon xanaa kon yëfi kon wérut Abdou Manaaf bii ma amee yonent bi bokkul ak Abdou Manaaf bi oncle yonent bi kon nag Imran bii bàyyi Moussa bokkul ak Imran bii bàyyi Mariam wa Mariam ti Imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitaabihi wa fi qiraatin wa kutubihi wa kaanat min alqaanitina Hachim moomu moo jur Abdou Manaaf ko jur mooy Mughira Mughira xusay ko jur kilaab jur ko murra kaab luway gaalib véhér malik véhér moom la ñuy wax mooy quraysh malik na kinaana xusayma mudrika ilyaas mudar nizar maad adinaan yonent ñu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ne bu ñu romb adinaan bu ñuy limal bu ñuy lim maam ñu ne dafa am mesure rek moo tax mu waxee noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yonentu boobu nag bi mu juddoo xeetu kéemaan gu nekk wane na ne ki judd tey am na lu mu war a doon moom la imam Busiri di wax ne abana mawliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtadain minhu wa muxtatami yowmun tafarrasa fihi lfursu annahum qad unziru bi xululi lbusi wanniqabi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cosaanam cosaanam gi ni maanaam juddum gi moo feeñal teewu cosaanam ana kuy cosaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ban mooy aadama bi mu juddoo rek lañ xam ne ah fi mu tàmbalee mooy aadama baax na de waaye fi mu mujjee muy yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam baax na de wala haashim gi mu tàmbalee baax na de waaye yonantu bi mujjee baax na de wala ruux gam tàmbalee te mooy cosaan gi mooy cosaani cosaan yi sallallahu alayhi wa sallam baax na de waaye mujj gi mujjee mottali ko gi mottali ko baax na de wala biiram moom yonantu bi maanaam baax na de waaye biteem tamit muy jëmmam baax na de laa tiba laa tiba yaadilu turban damma aadumuhu tuubaa li muntashiqin minhu wa multahimi moo tax sayyidatuna Fatima bañ ko suulee ba pare mu ñëw fóon xabru bi parfum bi nekk ci xabru bi euh, ëlmal ko ba mu ne képp koo xam ne fóon nga turbata ahmadin war fóon parfum bu ñuy wax gaaliya mooy algawa jamono ji mooy gawaaliya te moo gënoon a neex ci parfum yi ñu xamoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko Umu Sulaymin waxoon waxee ne ko sa ñaq wi dañ koy jël di ko neexalee suñ parfum yi mm-hmm. sallallahu wa alihi wa sahbihi wa sallama bi nga xamee ne nag judd na ni mu juddoo rek moo wan ne ki juddu war naa doon lu rëy rëy alayhi salaatu wa salaam wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun duwi taadimi in jaaxu sujuuni ala sururul muluki laha jufuulun wa najmul kufri du naxsin mahini ni ko Cheikh Alhaaji Malick waxee ci nuuni ya muy reyu ramaan fi madxi sayidi bani adnaan wala fi mawlidi sayidi bani adnaan sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama bi mu juddoo ndey xadijatu mu ne fi ndey aminatu fi ma toog laa gis lu génn leer gu génn ci man di ma leeral palais Cham ya bi mu juddoo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi googu benn buur fanaanul ci ci ci ci la ci lal sariiru ca fanaan ci lal Sidil Hajj Malik mu ne kulli malikin lalu bépp buur saara dafa mujj mun takki sandi aji njattu bilaa xilaafin li wax nag amul wuute wa rabbil kaabati baat naa borom kaaba subhaanahu wa taala waxuma la buur yi seen lal yi waaye kaaba gi ci boppam ñetti fan taxawut dafay yëngatu rek Sidil Hajj Malik tudd na ko bul woy ndax bi daf tabaarakallahu waaw yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam guddi gim juddoo iwaanu kisra ni ko imam Busiri waxee wa baata iwaanu kisra wa huwa munsadiun ka chamli ashaabi kisra gayra muntaimi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu ne wa baata guddi googu fanaan na iwaanu kisra palen kisra bu wa huwa munsadiun aji toj la mu ka chamli ashaabi kisra ni ki ñooñ kisra tamit mboolam kisra yi gayra muntaimi duun muy aji tàkku ni palen ba tojee noonu la mbooloo ma war a toje Kisra xëy yëfi jaaxal ko ki nga xam ne mooy xaadir xudaat ci seen làkk gént gent ga jaaxal ko ñoom ñépp ñu xëy waa saawata wa saa a saawata an gaadat buhayratuha rudda waariduha bil ghayr xiina rami saawata xëy seen géej far niis euh, seen safara wañ daan jaamu junney ak Mustafay bés bopp mu fay imaam Busiri ne ne booy xool safara safara sa fam newoon fa mel ni ndoxa fa ne waaye booy xool fa ndox ma ne woon dafay mel ni safara si ne ka anna bil maa i ma bin naari min balalin xusnan wa bil maa i ma bin naari min taxin ka anna bin naari ma bil maa i min balalin xusnan wa bin naari ma bil maa wa bil maa i ma bin naari min daramin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñu laajte ñu ne ah yëf yi de xew na waaye ñi xew xam ne ne ci arab yi la xewee ñu yónnee bi ñu yónnee ñu indi xam-xati arab yi ñu ne ah nañ def ci satiiku bi njëmee ci Satiifa Abdul Masih dem fa mu ne ko gis nga am na ku juddu moo tax buur bi fukki toj toj ak ci euh, pale ba xamal ne fukki buur ak ñeent leen dese bés bu ida zahara saaxibu tilawati bu fekkee ne borom njàng mi feeñ na borom yet mi feeñ na mu ne xamal ne Satiifa moomatul Sham waaye xamal ne Kisra it moomatul Faris kooku nag mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu ne ah kon de des na waaye balaa ñeenti at wala fukki seen fukki buur dem wala ñu ne balaa balaa ñoo yónni yonent bi seen fukki buur dem waaye ci jamono yonent ba ci jamono Usmaan la buur yépp faatu ñu daal di yilif euh, Faris Faris googu nag nañ ko gisee noonu la ko màkk gisee noonu la ko àdduna yëpp gisee wal jinnu tahtifu wal anwaaru saatiatun loolu la imam Busiri wax rahmatullahi alayhi mu ne jinne yaa ngi woote fu nekk leer yaa ngi jolli fu nekk wal xaqu te dëgg ci yonent bi yadharu ma ngay feeñ min maanan moo xam lu ñuy yëg la ci biir wa min kalami wala lu ñuy gis la di ko wax sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñaari way jur yu baax yooyu jur ko nag ndey aminatu bintu wahbin ibni abdi manafin ibni zuhrata ibni kilaab ibni murrata ibni kaabin ibni luwayin ibni ghalib moo tax imam ala sidi haaji malik ne foo ko xool rek moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga koy fekk muy sariha fihrin qurayshin alayhi salatu wasalaam ci Quraysh la bokk foo ko fekk kooku nag ñaar ñoo ñoo ko jur Aminatu nàmpal ko waaye Xalimatu jël ko yar ko nàmpal ko gis fay moom it ay kéemaan balaa moo mat dara ba mu mm, euh, fer ba mu delloo ko gën koo bëgg a jël na Amina bàyyee ko ko waaye ba malaaka yi ñëwee visité ko rek la njëkk a xotti xol ba moo tax imaam Busiri ne aqsamtu bil qamaril munshaqi inna lahu qalban inna lahu nisbatan aqsamtu bil qamaril munsaq inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratan qasami maa ngi gëñ ci weer wi ndax yàlla gëñ na ci weer wal qamari ida tasaqa te gëñ gi nag ñu ne du gëñug euh, maggal lu dul yàlla ni ngay màggalee yàlla moo tax mu dagan ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na arabi yu bu ñëw di ko laaj ay question mu koy tontu mu koy laaj mu koy tontu mu ne ko li nga ma wax duma ci yokk duma ci wàññi ba muy dem mu ne aflaha wa abihi texe nag su fekkee ne wax na dëgg waat boobu waatu tëkiid la wala waat la ala aadatil arabi ni ko imaam nawawi rahmatullahi alayhi waxee moo tax ñuy tashid ñuy def imaam buusiri di ko ŋàññi wala nangam fekk dañoo dañoo xamut wala dañoo nangamu damay wax ni imaam buusiri day na ko sharaf rek ku toll ni cheikh sayidi ahmad atijaani radiallahu anhu inaaya bi mu amoon ci burda waxuma la inaaya bi mu amoon ci burda waaye ci hamziya sax xam nga cheikh tijaani bind na sarxa ci hamziya bu imaam buusiri rahmatullahi alayhi yonent boobu nag feeñoon ci guddi gi ñu koy fàttaliku mu jógee ci ñaari way wayjur yu baax yooyu ñu koy fàttaliku muy màgg ba am ñeenti at wala juróom-benni at yaayam faatu si Haj Malik tudd na ko juróom-ñetti at maamam faatu muy dem fukki at ak ñaar ànd ak bay taxam bañ demee bay dugg saam Bahira daal di leen gis gis tamit ne niir waa koy eh, keral mu daal di leen invité ni ngeen ko xamee jox leen lekk waaye di xool yonent bi di ko questionné ba xam ne ki mu doon wut kii la ki téere yi doon wax kii la mu ne bàyyi bi na dëpp ak moom mook ñoom mook ñoom ba ni muy amee ñaar fukki at ak juróom ci la sëy ak Ndey Xadijatu ndax ki nga bëgg fokk nga xam moom mooy kan fokk nga xam biiram fokk nga xam bitéem mën naa am ki nga bëgg soo xamee biiram ak bitéem sa bëgg yokk ci moom baal mu wàññeeku waaye ñu àdduna yëpp nit ki loo ko xam loo gën a xam biiram rek daanaka gën a wàññi sa cofeel ci moom wala sa soppeel ci moom ndax ba chenitu ngay gis waaye yonent bi nag noo gën a xamee biiram noo gën a xamee këram noo gën a xamee mbiram gën ko sopp boo xoolee ci soxnaam nga gis na meloon ak ñoom wax na ko sax ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci ñooñam te maa gën ci sama ñooñ bi ñu laajee ne Aïchatu mu dafa daan liggéeyal ñooñam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan liggéeyal waa këram daf daan ñaw yëreem daf daan defar dàllam maanaam rëy rëy lu wutoon sallallahu alayhi wasallam mu sëy ak day Xadijatu fekk mi am ñaar fukki at juróom ndey xadijatu jural ko doomam yépp ba mu des ibrahima moo ko jural zeynabu mu may ko abul aas yi mu am ci umamatu am ci ali umamatu bi fatimatu dee moom lañ may ali ibnu abi talib mu xam ci muhammadul awsat waaye amul ay sët moo tax ay sët yonentu sallallahu alayhi wasallam duñ jógee ci moom moo ko jural roqayatu mu may ko doomi abu jahlin moo umu kalsoom moo doomi abu talib moo umu kalsoom waaye ba tabat yada abi lahabin wàccee mu ne leen dem leen fase ko mu jël umu roqayatu may ndey may seydina usman ñu am ci abdullahi moo tax Ousmane taawam amru la tudd waaye abu abdullahi moo ko gënaloon ndax jege gi mu jege yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waaye abdullahi dundut bi roqeetu gaañoo bi ñu jógee badar rek yonentu may ko umbu kulsum umbu kulsum amuñ doom bi umbu kulsum gaañoo ñu ne yonentu ne ko su ma amoon fukki doom wala su ma amoon téeméeri doom ñuy dee ma lay jox rek ndax Ousmane ibn Affan moo tollu woon noonu radiallahu anhu bi ki ci des ci jigéen ñi muy fatimatu mu may ko Seydina Ali ibn mu amal ko juróomi doom moo ko jural Xasan moo ko jural Xuseyn moo ko jural Muhasin waaye ci ndawam la faatu moo ko jural Zeynab moo ko jural Umu Kulsum am nañu jot rok roqayatu waaye wérut li nga xam ne moom moo gën a wér ci téere siire yi mooy loolu moo ko jural tamit Abdoulaye mi nga xam ne mooy Tayib mooy Tahir léeg-léeg téere yi bind Tayib bind Tahir foog ne ay doom lañ waaye benn doom bi mooy Tayib mooy Tahir mooy Abdoulaye Ibrahima nag la ko Maariyatu jural moo Xadijatu ba Xadijatu gaañu gannaaw ñaar fukki at ak juróom sayyidina rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa daal di denc sawdatu ñu ne mu denc aïchatu Cheikh Ibrahima Niass mu ne aïchatu la njëkk a denc waaye sawdatu la njëkk jël moo tax ñu bëri naan sawdatu loolu loolu di wax aïchatu aïchatu doomi Aboubacar Siddiq xaritam sawdatu jigéenu saxaabaam jël na ku ñuy wax xafsatu doomi Umar ibn al-Xattaab radiyallahu tabaraka wa taala anhu jël ku ñuy wax umu xabibatu ramla bint umu xabibata ramla bint abi sufyaan abu sufyaan booba ma nga ca kéeféer ga waaye ma nga naan yenoon tuddee ñun ñëpp bañ nañ ko de waaye kuy la woo xam ne ku soñoon mu jël sa tënk mm. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama jël na safiyatu bintu xuyey doomi xuyey ibnu di njiitu yahood yi ba nga xamee ne yonentu xare na ak moom yonentu sallallahu alayhi jël ko muy soxnaam surtout Haaruna la woon yonentu yàlla Haaruna mi nga xam ne moom Moussa ñoo bokk ndey ak bàyyi yonentu jël na Zeynabu bintu Jaxshin gannaaw bu ko Zayd fase fa lamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha likay laa yakuna ala almuminina xarajun fi azwaji adiyaihim ida qadaw minhuna wataran wa kana amrullahi mafuula jël na ku ñuy wax Zeynab bint Xuzaymata waaye kooku tamit ci biir dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam la gaañoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël na ku ñuy wax Juwayriyatu ñi ne déedéet jéebéram la woon waaye Maariyatu moom wér na ne jéebéram la woon jël na ku ñuy wax Maymunatu ci gàttal yonent bi sallallahu alayhi wasallam takk na fukki soxna ak benn waaye bi mu fiy jógee juróom-ñeent la fi bàyyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama loolu nag ñu ne xaas la ñeel yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci wax ji gën a siiw ci waxi fóode yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko wax ci alquran ne ko loolu nag xaa xaasatan la ko wax min duunil muminina loolu nag mooy firi ne yonentu bi rek ko moom ñi ne déedéet fas jàkk fase la ko wax ne ko moom rek ko moom wutee ba jarul wax ndax ku mel ni daawuda zahir yi la wax moom classe daawuda gi la gën a arrangé waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko noo ko gën a xamee gën ko sopp Seydi Xaaji Maalik dana wax ci biir xilaas ne min kulli wasfin xamidin xaaza aba ala tafdili rajaul baraya yowma musdaxami mu ne waaye wa xaaza ma xaaza lakin laa yumaahilu min tawaaduin wa xushuuci qalbi wa rëtami li nga xam ne moom la am yëpp sallallahu alayhi wa sallam fi ko yàlla teg yëpp sallallahu alayhi wa sallam bu ko neexoon yëgati ko waaye fi ko yàlla teg yëpp terewut muy toroxlu mu ne yàlla digal na ma ma toroxlu ngir kenn bañ a réyati bu fekkoon ne am na kenn ko war a rëy mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kooku nag moom la yàlla yónni ci bopp ñeen fukki xatam min baadi taa sittati ashhurin raa kan filaaqi subhi lam yahimi loolu Cheikh El Hadji Malick wax mu ne gannaaw bu mu amee juróom-ñeent ak fanweer ak juróom-benn weer maanaam fanweeri at ak juróom-ñeenti at ak juróom-benn weer la commencé lu mu gis guddi rek bu xëyee loola feeñ ci kanamam bu xëyee loolu gis ko daan nag dem yonentu sallallahu alayhi wasallam lu tax yàlla defal ko loolu mooy mi ngi koy wan malaaka ngir mu miin ko waaye fekk na jamono jooju ma dem di féexlu ji maanaam féexlu woyefal ruuxam njaamu xërëm gi muy gis biir makka te xam na ne lu dëgg waaye xamut nu koy eh, faje yàlla nee na yàlla lim dëxëñ ci moom wanagut ko ko maa kunta maa kunta tadri mal kitaab wala liimaanu walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaa min ibadina wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqimin moo tax ñu ne yéene ju rafet rek moo am solo sayyidina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yéene ju rafet moo taxoon moom mu moom la moo taxoon mu daan génn di xalaat ci yàlla di xalaat solution nan la koy amee alifa nuska wala ibadata wal xalwata tiflan wa hakada nujabaaw loolu imam Buusiri wax rahmatullah alayhi ci hamsiyatu ba waaye ba mu demee yéene ju rafet ba mu fekk fa yàlla mu ñëw jaaree ko ci euh, Seydina Jibril yonentu yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam ba mu àndeek soxnaam di ko wutali safara safara sam doon wutali yéene bu rafet la amoon pour servir waa këram ba mu demee fekk fa yàlla subhanahu wa taala mu ne ko innani ana allah la ilaha illa ana faabudni wa aqimi salata li dikri inna saata atiyatun akaadu fiha li tujza kullu nafsin bi ma tasaa bés boobu nag la yonente sallallahu alayhi wasallam gëj a noppaloo ci bu ko seen day xadijatu ne ko noppalul mu ne ko xadijatu nelaw amatul gannaaw tey noppalu amatul gannaaw tey lu tax yàlla daf ko jox ñaar tënk benn bi tiñ ci bi fi mu ne ko iqra bismi rabbika xalaqa linsaana min alaqin iqra wa rabbuka lakramu alladi allama bilqalami allama linsaana ma lam yaalam wan nañu ne balaa ñoo jëf jàng waaye ñaareel ba mu ñëw ne ko yaa ayyuhal muzammilu qumi layla illa qalilan mooy wane ne jaamu yàlla yi dafa am limite ndax boo rayee sa bopp doo mën a defati li yàlla bëgg waaye beneen bi mu ne ko yaa ayyuhal muddathir qum fa anzir mooy daawa ila allahi moom amut limite ku nekk war ngaa wootee kemtalaayu li nga xam ak kemtalaayu ña nga xam yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne qul haadihi sabili ad'u ila allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikina mu nekk di woote nag ñetti at yi muy nëbbatu ba yàlla nag ne ko wa anzir ashirataka alaqrabin bu yàlla ne ko it bëralal woote bi mu dem ca jabalu abi qubaysin mu dem ca jabalu safa dem ca dikk màkk woo leen ba ñëwee mu ne leen su ma leen waxoon ne armée ngi fii ci ginnaaw ngeen ma gëm ñu ne ko mosoo ñu wax luñ gëmul moo tax yonentu sallallahu alayhi wa wa innaka la ala xuluqin azimin bi ko yàlla wax def ko yore fekk sax yónnee guñ ko ndax nuun wal qalami min awaili ma nazala min alquran yi li bokk na ci li njëkk a wàcc ci alquran nuun wa qalami ko te nuun wal qalami ko yàlla waxee ne ko dëgg-dëgg yaa rafet jikko balaa ñu koy yónni ci lañ ko daan waxee sadiq ci lañ ko doon waxee Lamine sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa nga gis ne kon yàlla buy yónni du set koo xam ne fa mën a fen mu lay yónni du yónni ku ragal du yónni it ku amul di bokk du yónni it ku ñaaw ku ñaaw kenn du la bëgg ku amul bokk dañ lay noggatu boo ragalee ñu dox nga daw waaye bu fekkee ne dëgguwuloo kenn du la déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag yi ñuy baaxle ak yi ñuy rafetle yépp moo ko ëppale nit ñi ndax mi ngi bokk ci ñi gën ci ñi gën ci ñi gën ni ko Cheikh Hadj Malick waxee lillaahi darru lladi qad qaala maadihahu jazaahu mawlaahu xayran gayra munsarimi fal urbu xayru unaasin humma xayruhum quraychuhum wa huwa fihim xayru xayrihim yi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla nañu yàlla fayal waaja wax ne arab yi de ñoo gën a jege baax ci nit ñi mu ne waaye ña gën ci ñoom nag mooy Quraysh waaye ki gën ci ki gën ci gën ci ñoom mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kooku nag sopp ko moo ñu fi indi tu laaj nañ ko ne ko waa ji inna rajula la yuhibbu al qawma walakin laa yaamalu bi amalihim nit dana bëgg aw nit du mën a jëf seen jëf loolu moo ñu fi indi bëgg nañ yonent bi te mënuñoo jëf jëfam bëgg nañu mag ñi te mënuñoo jëf seen jëf mu ne al mar'u maa man ahabba moo tax ñu ne arja xadithin qaalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa ma al mar'u maa man ahabba xadis bi ëpp yaakaar ci li yonent bi mos a wax mooy nit ku nekk ca ña nga sopp ngay ànd ña nga sopp ngay àndal bu ëllëgee aljanna yàlla du seet kii nangam nangam dafay seet bëggoon na yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam mu ànd ak ñoom moo tax imam Busiri fa inna li dhimmatan minhu bi tasbiyati muhammadan wa huwa awfal xalqi bi zimami sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dana wax ci biir way way wajibun taatun ياتي من الامم مولانا بلا عمل وتابع السنة المختار دعت الحق yonent bi fa neex sallallahu alayhi wa dafa neex a bëgg ndax lu ñuy soppee ku ñu war a sopp yëpp a ngi ci moom bakkan dafa bëgg lu rafet moo tax ngay gis nit gis lu rafet mu bëgg ko luy rafet yëpp yonent ci gën a rafet wallaahi nit tamit dana sopp ku ko jege yonent mu ne yowmal qiyaamati sabab yëpp danañ dagg ak nasab yëpp ba mu des sama sabab ak sama nasab lu la booleeg nit gannaaw askan la lu la booleeg nit gannaaw diggante la yowmal qiyaam dana dagg ba mu des yonent askanu yonent bi ba mu des sababu yonentu yàlla Muhammad bakkan dafay sopp ku koy jëriñ nit ku ku koy jëriñ la te yàlla kat ñaar rek a tax mu indi ñu fi jaamu ko ak jëriñ jaam bi bu dee jaamu yàlla yonentoo ko dàqoon ci nit walamtu sunnata man ahya zalaama ilaa an ishtakat qadamaahu durra min warami shadda min saxabin ahshaahu wa tawaa taxta alxijaarati kashxan mutraf aladami wa raawadathu aljibaalu shummu min dahabin an nafsihi faaraaha iyama shimami wa akkada zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la taadu ala alisami wa kayfa tadcu ila aldunya daruratu man law laahu lam taxruju aldunya min aladami muhammadun sayidu alkawnayni walthaqalayni walfariqayni min curbin wa min ajami nabiyuna daamiru naahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wala naami huwa alhabibu alladi turja shafaatuhu li kulli mawlin min alaxwaali muqtaxami daa ila allahi falmustamsikuuna bihi mustamsikuuna bihablin غير منفصل moo tax mu ne in tatluha xiifatan min xarri naari lawan in tatluha xiifatan min xarri naari lahan atfata naara lahan min wirdiha shabimi la ko jiitu mu ne fa qultu ma wax ki koy jàng xarrat ki jàng alquran mu ne bëtam sedd na nee na ma ne ko fa qad laqad zafirta bi hablillahi fa'tasimi moom yonent bi kenn mënu ko jeexal <laughs> ñu gë ëlbati di ko di ko gën a sopp rek waaw luñ ko sopp nag du doy te nag luñ ko xam mu gën ñoo yokk sopp eh, si Hadji Malick liggéeyam bu rëy bi bi mu ci paree waxut ne moom la yaakaar dafa ne yàlla li yëpp kat xëy na nit ñi yem na leen de mm-hmm. waaye man de awma lenn lu ma lay indil su may dajeeg yow. Hmm. loolu sopp gi ma sopp yoon ci àll. walaysa li amalu. alqaaka ya amali. Ah. siwal mahabbati wa taadimi wa salami. loolu nag ñun ñëpp moom la ñu am. waaw ah, kon nag nañ bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ bëgg yonent bi te bëgg yonent bi nag mooy bëgg ñooñ yonent bi. te képp ku dul yonent bi rek ci ñooñ yonent bi. ba ci ñu ko dul sax yàlla rahmanil alamina la ko la ko tuddee. kon nag ñi ko gëmul sax ci raxma jooju lañ dugg moo tax yàlla dafa ne moom moo leen bañ loo kufru moo leen bañ loo fusuuq moo leen bañ loo waaye waxul ne moo leen bañ loo yéeféer yi moo leen bañ loo ñu bon ñi moo leen bañ loo way mooy déedéet kéeféer la ñuy bañ ak mooy yàlla ak fusuuq waaye duñ bañ nit ki su ma développé bañ ci nit ki gëmul yàlla ngir lim gëmul yàlla bés bu gëmee yàlla bëgg ko jafe ma kon nag yonentu sallallahu alayhi wa lenn la ñu indil mooy jëriñ jaamu yàlla jëriñ nit ñi allahu akbar mooy julli ak asalaamaaleykum allahu akbar nga màggal yàlla asalaamaaleykum nga jàmmal nit ñi kon nag loolu mooy ñu fi dajale yàlla nañu yàlla dimbale bañ xam loolu bu ko defee it tamit yàlla dimbale ñu comme ni ngeen ko waxee ba barrière yi nga xam ne léegi léeg mu dox suñ diggante liñ bokk liñ bokk Cheikh Abdoulaye bin Baye dafay wax ne ñeent mooy pakk foofu lay jeexale pakk yi dox ci diggante jullit yi nekk euh, Occident ñeent obstacle lañ am yu leen tere yegg fañ jëm mu ne bu njëkk ba mooy xalfiya ku nekk la nga indiwaale moom nga teg ci sa kanam doo doo gis leneen lu keneen am doo gis tamit lislaam bi ngeen bokk ndax li nga indiwaale wolof bi foog na ne aadam rek a baax naar bi foog na ne aadam rek a baax dégg nga diw sàngam foog ne tarixam rek a baax beneen diw sàngam foog ne tarixam rek a baax te li liñ bokk mu gën a rëy loolu buñ bu xoolee li liñ wuutee liñ nurale ko ëpp fuuf te buñ jëlee loolu teg ko ci suñ kanam yi ci des yépp dara baax waaye buñ jësalee gannaaw boobu nee na dara lu baax mu ne moo tax julli di li ñuy bëri bëri Occident mënuñoo am jenn kàddu ndax xalfiyaat yu wuute yi te ku nekk xalfiya boobu téye la mu ne beneen bi mooy dañ fee bees te nag foo bees rek fa am prix booy fay dañ fee bees mooy l'islam dëgg-dëgg yàgg na fi depuis balaa Columbus waaye l'islam nag présence bu mu fi am ñu yëg ko lu bees la mu ne te nag dëkku téeméeri at ci ginnaaw l'islam rek ngay fekk mu nangu beneen civilisation nekk ci biiram mu boot ko sax nag ni ko yonent bi defee ba mu demee Medina ak yahud ya fa nekkoon ak yeneen diine ya fa nekkoon ci wasiqa boobu nga xam ne mooy premier na Carta ñi nga xam ne jàng ngeen histoire ñuy wax Magna Carta bu mag la kaataw yonent bi magee na ko juróom-ñetti téeméeri at nga xam ne dafa boot ñëpp sallallahu alayhi wa sallam mu ne fii nag catholique yi sax ñëw woon na boot protestant yi muy Occident rawatina nag ñuy boot beneen diine mu ne moo tax loolooy tax lu xew rek ñu ne jullit yi lu ñëw rek ñu généraliser bu dara xewee benn jullit def ko ñu ne jullit yépp hmm. su fekkee ka ko def du jullit nag ñu créé ko lay wala duñ tudd sax lam nekk hmm. loolu tamit mu ne ñetteel bi nag mooy jullit yi seen moom ñoom yëg gi ñuy yëg ne dañu girls ci muy collective girls mu ne boobu tamit beneen affaire la bu fekkee ne jullit def na dara lu mu war def nga gis organisation islamique yépp ku ci nekk bind sa déclaration di wane ne lii du l'islam dégg nga ñu ngi koy dénoncé te mu ne bu fekkee ne yahud yaa ngay rey euh, palestiniens yi doo dégg benn mouvement yahud bu Amérique bu ko dénoncé bu fekkee Inde yi ñu ngi koy def doo dégg benn mouvement Inde bu ko dénoncé bouddhiste yi rey jullit yi ca Burma doo dégg benn mouvement bouddhiste bu Amérique bu ko dénoncé jullit yi nag lu nekkati rek ñoom ñëpp ñu commencé bind di wane ne mel ni ñun dañoo bokk ci yëf yi mu ne mu demee Angleterre ñu laaj ko ne loo xam ci mbiru jullit yi ak ban responsabilité lan ngeen ci lan lan seen responsabilité yéen nan koy gérer mu ne ko man aw ma ci benn responsabilité fekk booba feebaru nag yooyu xewoon Angleterre nag yu dof yi mu ne ko fii Angleterre nag yaa ngi dof ndax dafay firi ne nag yi ci àdduna bi yëpp dañoo dof mu ne ko déedéet mu ne ko lu mat ñaari milliards lu ca ñenn di def wala ñu ñuy tuddee ñenn sax mën naa am sax du ñenn ñooñu barki dem rek li xew Égypte ñu ngi naan xaw ma salafiste yi ñoo attaqué soufi yi te fekk dëgg-dëgg yëf yi gën a xóot loolu. Mhm. parce que fi mu nekk muy Sinaay yi dafa jege Israël te Israël daf ko boole ci boppam te mu ngi def pexe mu nekk pour jël jamono bi fi Mursi nee Mursi ñëwee yooyu déggatuñ ko woon waaye gis nga dem na ki fa nekk léegi ñoom la fi neyal. danañ fexe ba am luy wane ne lii fii lu ñu war a occupé la pour ñu dugg fa mhm. bu ko defee nag koy dem di attaqué sol mbubum lislaam ñu ne wax ne allahu akbar ak nangam fekk yooyu yëpp dañ ci amul demeewu noonu bu mujj bi ngeen baal ma mu ne mooy xool ñun jullit liñ moomal suñ bopp nan lañ koy gérer ak liñ bokk ak ñëpp nan lañ ciy defee maanaam ñett am mu ne soit nga isolé wu wala nga assimilé wala nga intégré mu ne isolé isolé wu baaxut mooy yëf yi ñu def ko yëfu sénégalais rek duñ ci boole keneen dégg nga assimilation yi baaxut ñu seeyal suñ bopp ci biir Amérique bi ba duñ amat xam amati culture duñu amati dina baaxut mu ne waaye dañuy intégré wu ba lii valeur fii ñu bokk ko ñu nit ñu indi ñëlee indi ñu boole jëriñoo yàlla nañ yàgg a jëriñoo yonent bi salaamaaleykum wa rahmatulah